bu retard de salaire les agents conseillers les prestataires de services, ñu liggéey en nañ en ne ni salaire ngi dund ci jaxaré ñent wër yo xamni ngi dund ay tolof parce que si salaire nonu Ils ñi ci seen scolarité doom ñi ci seen papa ak ñi nga ci ñi dañ leen menacé d'expulsion par leur bailleur parce que nous avons ay mois location mu nekk des nous tar une conseillers situation de doy situation de métier. Nous avons interpellé directement le président de la république Nous avons également le ministre de tutelle li nga qui retard de salaire Nous ñu dans l'immédiat Nous régler aussi de manière durable mu faire fee am benen jafé jafé bi nga xamné ni bëgg nañ ko tay waxtané tay wax ko askanu Sénégal moy li nga xamné ni moy contrat de prestation de service contrat de prestation de service yow nga nek agent di liggéey fi nga xamné ni yow ya wara promouvoir l'emploi et l'employabilité des jeunes jeunes ak famille ci yow lañuy ñëw pour am liggéey pour am xey ñen ñi ay porteurs de projet lañ pour am luñu mëna entreprendre yow mi nga xamné ne ne yaay gérer mission bobu non mu nek une mission très noble yow nga am une précarité de l'emploi amulo caisse de sécurité sociale amulo IPM amulo versement d'une cotisation à l'IPRES mu nek contrat bo xamné ni ben at lay durer année bi bu jeexee ñu yokalat la benen année ainsi de suite amna na ñoo xam ne ne nañ ñetti at loolu la ñuy dund ñen ñi depuis 2014 ñu ngi nek ci situation bobu non mu nek situation bo xamné ni bu précarité la parce que tay li ñu naan promotion de l'emploi des jeunes dafa nek une benn problème bo xamni ni Sénégal ak politique publique yi dañ ci accentuer seeni effort lepp lo xamni ni gouvernement bi daf koy def ci lu ëpp daf ko wu ci manam li ñu naan ndaw ñi tey age ñuy occuper une place importante ci dispositif bi nga xamni ni mom la gouvernement bi teg tey ANPEJ ces agents ñu nek ci jafé jafé yoy non non ñi wo askanu Sénégal di interpeller également le gouvernement mu jox solo mu jox également de l'importance ñi nga xam ni ñoy liggéeyee ANPEJ ñu jàppale leen ñu mun a am un travail boo xam ne ni moo leen di permettre ñu mun a dérouler convenablement ci xel mu dal seen liggéey parce que di liggéey liggéey boo xam ne ni chaque at lañ lay renouveler sa contrat année bi bu jeexee ñu tegalaat la beneen année te si biir am na si ñoo xam ne ni am nañ des niveaux master et des niveaux de licence amuñu promotion amuñu avancement ci liggéey waaw kan mooy ñaan yàlla di nekk ci benn liggéey di si nekk ay at te doo am avancement te doo am liggéey si ñoo xam ne ni yow nga ne prestataire nga yow ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les permanents yéen liggéeyandoo même heure di wàccandoo même heure ñoom ñu ne leen permanent la yow ñu ne la yow prestataire nga fendument bu jotee ñu fay kii fin du mois bu jotee ñu ne kee xaaral waaw loolu injustice la wala lan la ñu ngi interpeller le gouvernement di ko wax ne situation bi nga xam ne ni moom la ANPEJ di dund ak travailleurs yi nekk Sénégal nous avons un système de l'exploitation exploitation koy parce que tey munoo à chaque fois nga am des travailleurs di leen signaloo ay contrat de prestation de service loolu jaaduwul teguwul ci en tout cas nous avons comme comme lu euh, message yi ñu avons passé di leen remercier bu baax euh,